mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen internet yi fu ngeen mën a ne si àddina bi rek waaw tey nag gis ngeen ni ma toogee nii damaa wéeru nii yàgg maar parce que ki ma toogal xam naa boo toogee moom nii nga ndax xel mi daa dal actuellement comme fan yi daa duggoon ci lu leerul recours di xaar ñu nag recours ba daa génn ba ñu jox ko ndam au niveau du CNC ci digganteem ak Alioune Seye Junior ñu bëri woon le 29 décembre ci studio bi Mar Diop Assane Ndiaye ak Baol Production tëggoon ko ñun nag comme lu leer la ñu moom ñoo fi nekkal làmb ji di leeral maar xam nga ñun bala ñoo mën a àddu rek ñoom ñu wax comme ñoom wax nañ nag ñu ñëw leerlu si ci Tapha Mbeur ndax jox nañ ko ndam wala de ndax coow li bëri na si dëkk bi diggante ak Alioune Seye Junior mbër maa ngi lay nuyu di la ziarati. waaw El Hadj Babacar maa lay ziar bu baax di la fay di nuyu waa Leewtoo TV yëpp di nuyu ñi ngeen àndal di nuyu képp kuy seetaan sit bi di nuyu sama gaay ngeen fekk ñoom ma Ndiaye toog sama président fans club Maurice Tafa bu ndaw Tafa fay sama xarit sama doomu ndey Moïse. xam nga jarbaat si Mamadou Ndiaye maa ngi koy siyaar baax di ko nuyu di nuyu Amadou Diop jim ak booy yi nga xam ne ñu ngi ci kaw ak booy ñëwagul yëpp di bëggee waa àdduna daal. nga jóge ci combat wala nga jël combat boo xam ne ni bi nga ko jëlee ñëpp dañ ne woon yaay favori parce que dañ na yaay xale muy sa diggante ak say Seye nga ñëw am ay jafe-jafe ci combat bi mais balaa may dem sax ci loolu damay jëkki ci li nga xam ne ni mooy Tafa Mbër gis nañ ko mu bëreeg Tafa gi di gaay day bëreeg ay mag. jël Mame Balla ñu ne ba tey day bëreek ay mag nga ñàkk foofu ñoo ñëwaat jëlal ah, jëlaat Alioune Seye Junior Tapha Mbeur moo taamu di bëreek ay mag wala Tapha Mbeur dafa ñemewul bëreek ay moromam comme ni ko yenn nitu làmb yi di waxee. non ñi ngay wax ñëpp mën naa ne du sax ay nitu làmb ñoo xam ne dañoo am seen i mbër comme ñëw ni nga amee ay supporters mënoo si dégg lu la neex parce que duñ la wax lu la neex mais xam nga loolu mënoo si wax lu bëri parce que Alioune Seye Junior naa ne champion yi si jee ko mag. te man ñooñu laa fa seen bëreel. champion yi ci làmb ji. Aliou Seye Junior mënul mag ay Balla Gaye 2 mënul mag ay Ama Baldé mënul mag ay ñoom Modou Lo mooy mbëri nga xam te ni ñoo nekk ci kaw. te kon ama làmb des fois force day am ñoom ay lay mun ti fee ñàkk. ñooñu dañuy sànni xeer quoi man noonu laa ko mën a jàppee. làmb bi may départ ci làmb dama bëreeg samay morom am ñoo ñoom stade laa leen doon gisee xam nga loolu bokkul ak ak bëgg lu yomb stade nga ne da ñëw mbër mi dina def ay affaire ñu nga doon xam ne kii laa war a bëreel xam nga loolu bokkul ak bëgg lu yomb mais làmb looy gën a dem faaw am ñu la may chance Ama Baldé Modou Lo dafa waxoon Modou Lo ko jiitu ci làmb Modou Lo ko raw ci làmb tey Modou Lo bëriwul ak moom. seen combat taxaw na. taxaw na voilà loolu mooy làmb waa mais gars yi ñi nga xam te ne dañoo am yeneen i mbër faaw ñu sànni xeer parce que dafa am mbër du seen mbër duñ mën a wax li ko neex duñ ko xoolal li ko neex quoi dañ koy xool loo xam te ne buñ ko ko waxee ku ko dégg weñu ci dal tee mais nag ñun dañoo tàmm guerre foowee guerre sànnante xeer moo tax xeer yooyu moom dama koy mën a éviter. maanaam da ngaa denc xeer yu bëri sa côté. non man dama toj sa bopp bi dafa toj ba taas. moo tax ba ma sànnee xeer rek. nii laay def sama nii rek laay def dem. daal di def feccum bonaat nii rek. <laughs> yow sib nga lépp yow da nga sangu rek mais nelawoo. <laughs> tafaa ngi nii mu ngi nii waa léegi dañu ñëw directement sa combat ak Alioune Seye Junior combat bi taxaw nga nekk favori parce que yaay jeune mais am na ñu bëri ñoo xam ne dañ doon Tapha Mbeur na moytu Alioune ndax mbër mu mën a bëri la te du du du mbër mu ndaw yow combat bi techniquement bi ngay dem ci làmb ji yow amoon nga ay bagage technique yoo xam ne leer na Alioune Seye mi mënta rëcc ci yow. dëgg la ay bagage technique yu normal parce que dama ànd ak ñoo xam ne ay champion lañ ku su mel ni ñoom Moïse ñoom Dame Sène ñoom Franc ñoom Hercule Mapenda ñaari yaar gars yoo xam ne ni maanaam bëre du jaaxal si loolu dama ñëw fekk samay grand di bëri ma nekk si ba dugg si man boo seetloo techniquement moom moom moo jekk woon parce que arbitre bi ñu man bi ñu jàppantee dama tarxiis ba jege suuf moom mu daw takk action bu ne def na ko fa mais gow ma ne Alioune moo ñu daax bëri yàlla def foofu ma am ndam si kawam arbitre nag nit la day juum. noo amee ndam si kawam foofu. dafa daw takk ma di tegal sées ma teggi sama ñaari tànk yi mu tëra di mel ni lu jaxasoo noonu mu ciy profité ma arrière dóor ko uppercut mu sukk 4 appuis ma dóoraat ko gauche droite jàppaat si bopp bi ak ci ginnaaw ngemb li këpp ko mu rëppaat 4 appuis ma wër ko ndomba di ko dóor ci la sama loxo bi damm parce que ñu bëri ñu ngi naan Tapha Mbeur lu tax mu bàyyi di génn di dem. jaaxal nit ñi lan moo tax bàyyi ko. waaw parce que boobu dama gaañu. soo gaañoo da nga war a bàyyi. non est-ce que xam nga damm loxo bi dafa mel ni amat bokkatul si man dafa amatul benn force loxo bi daay jékki-jékki dee. bi ma koy dóor coup bi si bopp bi la dal dóor boobu moo damm loxo damm maanaam fii moo damm ci wetu kentoo bi looloo ma looloo indi ma jikki-jikki di bàyyi tombee magam di dugg si géew bi parce que xam na ni man su ma gaañuwul action bi ngay def pour wër ndomb moo gën a métti yeggali daan blessure kese moo tax ma bàyyi génn géew bi mais kii daanoon def na kaat ab xam naa ni daanu na xam nañ daanu na parce que bi ma génnee daam seen di ko xool des fois di moom mi ci caméra waaw ma lay xool ci biir bët. dana dëgg. nga waa la daa bëgg waa PA di ko xool xam nga. bëgg regard bi. bi ma génnee Dame Sène laa njëkk dajal si biti Dame Sène na ma daan nga ko. xam nga ci la coolu bëree si ci mikaay bi bul bëriwaat bëriwaatal bul bëriwaat te boobu man malgré gaañu naa mais xam nga CNG tamit dafa am mënoon naa bañ a bëre pare ñu sanctionné ma dañ naan arbitre dafa maa woowaat ma bañ moo tax ma ñëwaat comme CNG mooy suñu kilifa ma ñëwaat lu ma si am ma jël bu ma ñibbee ma dem topp li ma yoon may te moom laa def CNG jox ma sama ndam ma koy sant bu baax di sant waa CNG parce que munoon naa fajal sama bopp te kon si man lay métti mais bi ma leen bàyyee ñoom ñu faj dañ kaa teg si yoon. léegi léegi ma ñëwaat ba tey du ma génn ci combat bi mais nañuy xool yàgg parce que bëgg na ko ne euh, bi ngeen bi action bu amee ba magam dugg ci géew bi nga bàyyi ko après am soufflé waat mais foofu lan moo tax. Alioune Seye man la yegg fi mu la yegg ba daan la jëli bu leer boobu mu la daan ci ak suufam ñi ne nañ Tapha Mbeur dafa sonnoon ñi ne Tapha xaw lu xew lan la woon. non du loolu sax li ma si boole moo bëri parce que boobu boo seetloo damaa attent attentif lañ koy xam attentif. da ngaa xaar quoi déglu. waaw damaa taxaw parce que boobu man malgré tout maa ngi blessure bu metti ba pare presque déstabilisé wu naa ko waaw man damaa taxaw rek boo seetloo deuxième premier round bi li fa am yëpp maa ko def mais boo seetloo deuxième round bi li fa am yëpp moom moo ko def. du woon coono daal. mun na mun naa am fatigue parce que boobu man sama premier souffle génnul ma euh, échauffement bi doyul lu tax parce que boobu bi may pare pour échauffer wu ci lañ ci la combat bi doon espécial bi jeex ñu ne ñëw leen ngeen dugg boobu automatiquement damaa dugg bëre jàngat la si ñun tamit quoi aussi tamit booy yi gis nañ ko dañ koy waajalaat beneen yoon ñu bañ loolu dalatuñu mais am na ñoo xam ne ba tey ci biir ñi wër Tapha Mbeur dañ na ay xale lay àndal balaa bëree coow dina am ci ci nangam sàngam euh, est-ce que Tapha yaa ngi dégg wax jooju maa ngi koy dégg maanaam gars yi bari ñu ngi koy souligner mais tamit xale yi man ñoo ma dimbali ba ma yegg fii du ma leen écarter nag mais faaw ñu indi ay mag yoo xam ne dañu xam làmb nekk ci làmb xam làmb mooy lan ànd ak ñoom bokk ak ñi àndaloon parce que bukki moom nee na xamul luy dëgg mais li ñëpp waxee dëgg. waaw moom bukki de loolu la wax. waaw bukki xamul dëgg li mu wax nag mooy li ñëpp waxee dëgg loolu nag comme que nit ñi dañ ko wax sama booy si boppam ñoom ñoo ko ñoom tamit dañ ko souligner nañu xooli ji ñi nga xam te ne ñii war nañoo mën a teg loxo ay mag yu responsable ñu jàppale ñu ñu ànd ak ñoom dem fi ñu bëgg a parce que sa combat ak Mambal su ma jugul xeex am na sa cumukaay bii passé xeex am na fa est ce que jotul tamit comme li nga wax léegi solution am ci la parce que xeex yu bëri ci cumukaay est ce que loolu baax na ci cumukaayul mbër. baaxul moom wax dëgg tamit boo ànd ak ay booy xam ne dañuy dem ak seen bu ñu gisee ku leen bëgg a néewal doole amaana ñeneen ñi sax dañ gis ni boo yee fa ne boo seetloo lu si am yëpp ñoom ñoo ñuy tooñ ñoo ñuy fekk fu ñu nekk attaqué te booy tamit ay bañkat lañ am na sama ñu ngi woon bi mais action yi lañ gis wàcc te boo seetloo am na ñoom yàlla mooy def si ñoom coow bëri bruit su amee sax policiers yi duñ dem si ñii ñuy jàppanteel bi man lañuy ñuy ñëw ak sama cimikaay dafa indi bruit di jàpp sama mbooy di yóbbu. est-ce que da yor bruit. waaw mën na ne mun naa man kii laa quoi machine wal machine wal bu tàkkee rek. wal de bu tàkkee nit ñëppay fàtt seen i nopp. noonu demee xam nga rek jikkoy machine wal bi moo fi ne doo xam lii lan la. yaakaar doo def machine bi silencé kon buy walati kenn bañ laa dégg. ah moo tax ñu bëgg a woowee ji fere frère ñu xool nu ñu ciy def. machine comme léegi euh, technologie bi kii na yokk euh, soppeeku na. wuti boo xam ne nii moom day kii rek day wax ca suuf. moo tax ñu ngi waxtaan pour xool yan grand ak fan lañu war a mën a wéeru. ana recours bi. recours bi génn na. ana mu ana li koy firndeel. suñuy wax day leer. sëñ bi ma xool loolee noone waaw yaakaar naa yaakaar naa ñaari feuille la. bii mooy dépôt bi bi ñuy déposé ji recours. yàggamaar bi mooy déposition bi yaa ngi dégg yaa ngi gis bii nii yow tel nii bii mooy réponse bi boo xoolee yenn mbër yi mënul jàng paragraphe bii ngay xool bii ci kaw paragraphe boobu ñu ngi ciy wax lépp lu ci xew noo non man man bokk maa ngi mbëri dama jàng de man mun naa ko liral sama bopp waaw li CRG wax laay wax vu le vu le rapport de l'arbitre en date du jour vu le CD déposé par la partie requérante vu les CD visionnés par la CRD commission réglement et discipline dëgg du na vu réglement de lutte attendu que le visionnage des CD du combat montre nettement la chute du lutteur Papa Samba Dia dit Alioune Sèye Junior de l'écurie Walo par quatre appuis par ces motifs le CRD commission règlement et discipline infirme la décision de l'arbitre sur le terrain à savoir Papa Samba Dia dit Alioune Sèye Junior de l'écurie Walo vainqueur sur Amdi Moustapha Mbeur dit Tafa Mbeur de l'école de lutte Grand Médine euh, sur le côté et proclame le lutteur am Amdi Moustapha Mbeur dit Tafa Mbeur de l'école de lutte Grand Médine vainqueur de Pape Samba Dia di Aliou Seye junior de l'écurie par 4 appuis. leen. loolu. tàccooli. tàccu leen loolu. Tafa Tafa ban classe nga pour pourtant nag bi ma waree def troisième war a jël BFM bi. ci laa jënd galas te du yoon waroon naa am bac sax. Ah, mais aw ma sax BFEM entrant sixième dong laa yam waaw certificat naa ñu bëri ndax ñu si bëri moom sem 2 lañ lañ dëppee <laughs> mais mais mais bu ñëwaatee ce que ndam lii neex na ci yow en tant que jeune que doonu loon doonu loon gën ci biir géew bi ñu nga amaan na géew bi moo doon dàq fuuf ndax moom la ñi ma yóbbu woon ñëpp loolu lañ doon xaar mais mënoon naa ko amee foofu du gën si man wala du gën si ñi ma àndal damaa jàpp ne suñu borom maanaam nii la ko bëggee woon xëy na lii moo gën si man mais bu bu ya bu dee dëgg la yàlla bëgg man si biir géew bi laa ko bëggoon daan ko jël bu leer jël sama drapeau ànd ak samay gars yi ñibbi mais comme que nii la ko defee CNG xool na gis na ni ñoo am ndam def nañ recours victoire bi ñëw na mu des drapeau bi manager moo ko war a indi comme que ket na ci ba am 8500. 8500 na ma delloo ma am ten taw. nga am 10 ma am 10 <laughs> kon de seddoo ngeen xaalis bi xanaa. non moom kay 8500 yi bu doon baax na. baax na de baax na de faj nay soxla de bëla loolu mën na lu ne <laughs> leer nga wax de mais ba tey foofu duma fa des ndax seen diggante géejawaay toujours day metti entre parcelle géejawaay axe bi moo tàng waaw ci luy baax la ruq bu sedd amu fa dama seeti démb ku bokk ci écrit waa ba Alioune Seye muy papa booy jinne ne na moom loolu ñoom intéressé wu leen Alioune Seye am na ndamam ñu ngay feete seen victoire yow boo defoon la nga war a def lii du ci am mbër boo xam ne xool dam bëree dam waaxu dam wax dam papa booy jinne wax ne ne ñetti combat boo ci génne rek gàddu say loxo ne da ngaa dam nee bu dee lool la nga bàyyi wala nga seeti leneen loolu parce que chaque jour nga dem moo ko wax du man. Eh. papa booy jinne écrit waal. dama xamul lu ma ko war a wax sax. man kooku lan laa koy ah, waxal ak maar kay. kon moom jarul muy wax ak man comme que man comme que man dama gaaw a damm sëñ mi moytuma damm waayi dama bëreeg ñu dul damm moom dama man dama gaaw a damm du ma yow kii kii kii respecté wu ma de waaw. waaw booy jine respecté wu ma. li ngay dama ko jaaxal. waxul lu baax si man te man lu baax rek laay wax si moom. non moom dana yow buñ la xoolee sax nga damm quoi. <laughs> papa papa de li muy wax nag est li que ni wul dëgg parce que man sax est-ce que du bi ma ñetti damm damm xaw ma ñaar. daa bëgg ma communiquer si moom ne man ma communiquer ma yab mu xam man. papa booy jine laa yab. daf may fontoo. ku ku maanaam ku lay fontoo noo koy def. <laughs> kooku mun ma wax si moom sax. déet fa nga ko war a fajare fenn la ca géew ba xanaa maanaam moom lu benn xam moom mi may wax lu ñaaw ma su ma waxoon si moom tey day jóge fii yëpp mais li mu wax est-ce que lu ñaaw la maanaam koo xam ne boo ko xoolee mu dam bu bëree bu jàppee dam xanaa du lu ñaaw loolu kay lu ñaaw la parce que kooku mu ngi mel ni nawloo ma mel ni moom moo ma gën a dëgër <laughs> non mais kii kii yem na ma kii daf may fonto liiru jàdd xale ba noon na ko keneen a nooy mu ne ko luy nooy <laughs> c'est man léegi dama no <laughs> c'est que man wax dara si làmb lu xam ne lu lu dérangeant la mais booy boobu noonu dafa ma tooñ de papa tooñ na ma kay mais baalu ma ko ko de ah, luy loolu du ma ko ko baal de waaye li ko koy yee daal seet mais du ngeen bëri yéen ñaar ah bis bu ko làmb yàlla tuddee xam moom mi mooy tooñ naan may damay dam xam nga lan moo koy neexal xam nga lan mooy tax nga wan ko ne yow doo koy dam ciy caaxaan maanaam arbitre suuf leen lekkante leen seen gilal avance am mu jël sa avance ngeen bëre wala du benn parce que man moom palmarès boolewuñu da nga ko dépassé làmb boolewuñu ah. dara boolewuñu moom defetam yi ëpp victoire am yi xam mu ngi may wax loo moom nag dina mbër mu seer la de te billet da koy jaay ba mu doy mobilisé seer boo xam ne yow say defetam say victoire kooku dafa moins seer fexe mu seer ngeen bëri kii <laughs> kon day seer te bëgguma mu seer kii dafa ma yab naan ma ay man damaa yomba dam ak mel ni kuy wax ak bant mel ni ba loolu laal mu dam kii dafa may fontoo waay du man ak moom moom cinq défaites la am xaw ma trois victoire man damaa def neuf combats huit victoire benn défaite booy casse-toi pour ma fontoo waay kii dafa ma yab na jóge fii booy jugal foofu dégg waaw na jóge foofu loolu mooy fontoo waay maa moom du ci moo dul làmb si boppam waxuma duñ mës a bëre waaw mais mën nañoo bëre ji mais maanaam dafa jorogul lii nii nii may waxe moom moom bu ma ci wax ay waxu ku ma jege ma damm ku ma laal ma damm moom gënu ma ñëwalu metti gënu ma jaar fu metti maa ko gën a metti carrière fop maa ko gën a jaar fu metti fuuf xam nga li ma laa maa ko gën a dee maa ko gën a dof maa ko gën a karaayis nga yaakaar ñu si domaine boobu doo ko wan lii ci ci làmb domaine boobu bi suñ fa barke Muhammad mu bàyyi mais xam nga yeggunu foofu bu moo wax ay yow ku la jege nga dam damm tooñkat la loolu tooñkat moo koy wax te yàlla ne na kuy tooñ du la faral kuy tooñ yàlla du la faral boo yow dangay tooñ de damay bëreeg say morom. waa léegi bu dul moom am na ñoo xam ne wala sax balaa may dem ci adversaire yi carrément ma damay dégg ay rumeur ñu ne Tapha Mbeur bi mu jëlee combat bi entraîné ak ay côte sëm après bi mu ci jógee Tapha Mbeur da dañuy naan daa a dem rock énergie ñi naan feneen parce que fi mu nekk du écrit yu nangam ngi dégg rumeur yooyu loolu yaa ngi koy dégg. loolu dégg nii rek mais gars yi maa ngi ànd ak ñu ma doon àndal ñëpp xëy na kay sama gars yi gis ni man am na lu ma manqué lu ñu war a mootali loolu la gars yi di souligner te loolu déggoo nañ ci si ay kàddu te ñu ngi si nii moo tax Tapha Mbeur buy ñëwaat beneen façon lay ñëwaatee. da dem rock énergie. ah maa ngi wax ak samay mbokk am na lu ñuy bëgg am na lu ñu préparé mais instant bi waxaguñ ma dara ñoom laay déglu yow bëgg ngaa dem Rock Énergie yow. non man kay fu ñu ma joxoon rek bëgg naa fa dem maanaam génnuma parcelle en tout cas. Rock Énergie laa wax gëmmuut le roi des arènes ne. que Rock Énergie ko Dóor Dóoraat écrit bu nekk parcelle mu leer ma ni ñoom gis nañ ni foofu war na maa mën a dimbali no ñoom man fu ñu joxoñ damay dagg wax dëgg parce que parcelle moo ma ñor. mais man dama da damaa for ci wewu bay turu Rock Énergie. waaw gars yi am na ñu koy ngunu ngunume mais man maay fépp de parce que Rock Énergie même bu fa nekkul dama fay entraînement samay seen booy yi fa nekk maa ak ñoom dañuy ànd su ma amee combat dañuy ànd di entraîner defandoo. bu nekkee ci ginnaaw Modou loolu war na mën a neex de xanaa. <laughs> day naa ne sa day jàpp ci say affaire daa mel ni. non day neex ba dàq neex xam nga ni xam nga ni loolu euh, nu ngi koy tuddee. dëxin gu dëxin gu ñu segg booleeg meew. ah dëxin guy waaj a pare. yow ba suukar de. yow mës ngaa ibbi cin boo xam ne dëxin gaa ngi waaj a pare. lu muy mel. day rafet. <laughs> <laughs> yow xam nga cin bu rafet. waaw lu koy rafetal tafa. mooy dëxin buy waaj a pare diwlin bi tëmb kaane yi génn laxas yi di fëlal seen bopp ak ñuy dugaat ngay gis mboq mboq mboq. <laughs> loolu mooy Tapha Mbeur ak Modou Lo buñ bokkee kii. loolu dina loolu cool mbëng mbëng tungu ne la. <laughs> ak ñoom gorom mbabas ak ñoom seet. loolu foo ko tëgg dëkk bi tas. te loolu na gars yi déglu rek. ba nga topp ci ginnaaw mook Ama Baldé ci diggu ci diggu bi ba mu tëcc ko aal ma ma tëcc. Moodu mën naa tëj Ama ba di la aal. moo Moodu ku nekk ci làmb mën na ci yow dara maanaam kooku yàlla na ko yàlla defal jàmb rek ku ne amul mbër mu ne ci làmb te mënul ci dara. mais tëj ci kee ca pikin sëll bu ndaw be yomb na. bañ a ah xanaa du mbër rek du nit kooku làmb la champion la nag dafa def ci ay preuve ba war a bëreek mbër. mais nag du ma la nëbb ki muy bëreel dafa neexul a bëreel de. Moodu waaw neexul a moom champion la mais neexul bëreel. est-ce naa bëreel. ama neexul bëreel maa bëri na safara de. te ama dafa dajale daan ñuy naqaree daan ci at yu ndaw ku ci daan tafaatin daan ci guy gi daan ci zos daan ci papa daan Malick Niang ci moyen de deux ans yi wala trois ans kooku kuñ la wax yaak moom du mbaa dañ lay nax ku mu jàkkaar loolu war na ngaa mën a bëre ak moom. moom am. waaw te da koy respecté jox ko lim moom ñun parcelle lañ dëkk mais dañ koy nangul. champion la wóor na yàlla mais nag ki muy bëreel neexul bëreel. Modou day bëre day xeex te daa sañ waaw dëgg du neex yàlla na yàlla may ndam Modou Lo Ama Baldé féetee suuf Modou féetee kaw waaw. mais lu tax diggante parcelle ak ak Peggy ak Géejawaay di di metti waaw xëy na dañ bokk luñ bëgg ñoom ku si nekk da ngay bëgg téye làmb Géejawaay ne ñoom ñoo ko moom parcelle na leen du mu du ci dal moo tax mënut a neex même Géejawaay Pikine Pikine parcelle Pikine Géejawaay. géejawa parcelle géejawaay yëpp noonu lay demee parce que ñooñu ñoo sekk làmb te ñooy banlieue bi. kon làmb ji léegi foofu la ne. bi ñoo si mën. Hmm. waaw ñoo ko ndengee ñoo ci toog. xale bu nekk fas de ñu ngi wax sa digganteek man moom ñi ñuy wax sama digganteeg ñoom bëri na mais. Ada Fass xam nga ko. laa ñi ñuy wax. xasanu nga de ba may wax ba tey xasanu wu naa Ada rek nga laal sa bakken. non damay xasanuwaat. <laughs> Moustapha sa waa ji xasanu na de. dama làmb ji man ñi ñuy wax ma ak ñoom. bari na mais ku ci nekk xam nga ki nga war a bëreel. mais Tafa mbër Ada Fass. Tafa mbër ak ñëpp làmb la. ba Ada Fass du sa adversaire. ñëpp samay adversaire lañ mais am na ñoo xam ne dama war a bëri ñoom jamono ji la wax ma leen kon. non non maanaam xam nga am na ñoom dañu du ma leen tuddee day mel ni ñoom man maa leen di tëkku. te damaa def samay da ngeen a war a waxante. non mais dañuy waxante. barke ah, mu xam kan nga war a bëri. xam nga la mooy problème wu làmb léegi. booy ku si ne na gaaw yëkkati mbagg. ah yow mii ci booy yi nga di defe na waaw ñun bi la. da ngeen di yëkkati mbagg. dégg am na ñoo maanaam li ñuy ñoddi moo mënta ne te loolu noonu. mais doo tudd say adversaire sama laa ma ji xam nañ leen mais man bëgguma jaa seen tur quoi. déedéet dañuy toog seen ko ñuy diw dégg nga ko man la moon tudd te man taluma loolu sax su paree nii dama dem nekk si leneen. mais war nga mën a wax nag ñi nga war a mën a bëreel Tafa. ñi ma a bëreel bëri na mais booy moom gaan. xam ne Tafa koo koy jox. waaw. dégg naa sonn na ci recours yi am di Moustapha. kooku kii la bëgg parcelle. est ce que duñ ko jox maire mussa Sy bi après bu Moussa Sy bàyyee. waaw mën na koo xeex de. Moustapha rek. ndax ku laal parcelle mu xeex ak yow. dëgg du neex waxuma la Tafa mbër mais ku laal parcelle. dootoo ko defati de. mais Tafa bëggoon naa nga ne ma diw mi làmb boole na ma ak moom. sama làmb ak double moteur moom la àdduna bi bëgg. ah barke Mouhamad. Tafa la nga laal dis na de. si loolu diisul. loolu dafa war a dem biir arène nationale ñu toj ko. double mu génnee rëbës rouge blanc ma génnee ay Dental rouge blanc. ngeen daje. ñu dajee làmb ji saf loolu mooy bés. loolu àdduna bi bëgg ko waa. duubul parce que làmb amateur la. làmbu lu sponsor sax dañuy ñëw. yàgg duubul. lu leer laa lay wax. duubul nga yaakaar eh, romb la wala. bu rombee fu mu jëm. lay laajte. moom du dëpp balaa muy faxastalu fu mu jëm. dëpp ñëw fa. bëre ku ma ëpp coow si làmb. mun na bëre ku ma mag mun na bëre ku ma jiitu si làmb. mais mun ma bëre ku ma bu coow te man ma def samay preuve ëpp ma ndam gënu ma néew ay defet maa ko gën a néew defet su ma ko ëppul ndam ëpp ma ndam. waaw ah, double bariwul defet de Tapha. mais maa ëpp ay maa ko gën man benn defet laa am am huit victoire. ci neuf combats. waaw kon war naa mën a bëreeg yenn champion yi man xeebu ko minimiser wu ma ko. nee nga mu dëpp balaa fa xasal. wóorul te bu ma jëlul léegi day gën a métti moom. Hmm. waaw moo tax ma lay wax li ma lay wax. tëkkuwuma kenn mais damay artu ngir ëllëg bu méttee si yow doone waxuma ko woon xamal mu la. man de sama maam daan na wax ne du doon magum waxoon magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko laay doon. waaw xam nga ëllëg bu ma ko bu ma ko waxul nii ëllëg dañ naan dama leen nëbb sama bopp. te Balla Gaye dina ma dem VAR daa am léegi. VAR war na leeral sama kombaa bi cooli bi mu bëree ma ne bàyyi leen ma dem bëre su ma demee ñibbi ñu dem xooli VAR. VAR CNG laa tuddee VAR léegi. CNG VAR. gisoo booy yi dañoo daw dugg si man leen taxaw leen def nii. vaar bu génnee rek dëkk bi toj. mais dinaa la laaj leen xam nga tey vaar neex na ci sa ci yow ëllëg day ñëw te bés la mbaa bu la vaar dabee def la lii du doo ci am benn jafe-jafe ak ñoom. vaar daal doo mooy vaar ba tey <laughs> parce que. Ah, coupe d'Afrique bi def nañ ñu ko de. vaar jox nañu benn match. mais xañ nañu beneen match de. <laughs> ëllëg bu la vaar xañee match nooy de. xooliwaat vaar rek. <laughs> mais fi ñuy jeexale mooy am na ñoo xam ne dañ na day day foye làmb yaa ngi dégg maanaam day joxul làmb gëddaam te am na mbooloo nit ñi bëgg nañ ko ba pare mais daa jël affaire bi à la légère quoi di ko foye non non pourtant ñoom ñoo gisee loolu mais heure bi Tapha Mbeur maanaam bëréwul ak adversaire kase ñi mu bëree dafa bëri heure bi Tapha Mbeur dafa soxla taxaw xam am na ñoom dañuy toog seen kër yi Tapha Mbeur dafa war a góorgóorlu Tapha Mbeur dafa war a lii Tapha Mbeur dañ si war dafa war a fexee doon champion mais ñoom buñ si jàppul est-ce que loolu dina Tapha Mbeur benn loxo mënut a def lépp man samay xarit rek ñoo si jàpp te am na ñoom ñu ngi fii biir parcelle bi ñoom ñi nga xam ne am nañ moyen seen poste war nañ si mën a ñëw dooleel ma ñi nga xam te ne mën nañ bañ a am moyen mais am nañ xam-xam boo xam te bu ñu ñëwee ak Tapha Mbeur tey Tapha day jóge fii mun a dem fële am ñoo xam te ni pratiqué nañ yenn sport yoo xam te ne tey mun naa wéetoog Tapha Mbeur jox ko ay clé wala ma wéetoog moom sant ko ay xeetu entraînement loolu yëpp maa ngi si woo ay nit mais toog di croiser les bras naan booy bi bi bëgg na boo bi mi ngi ciy sonn mais am na fu xam-xamam yem am na fu dooleem yem am na fu niveau di yem ñooñu ñooy mën a ñëw fexe mu dépassé niveau boobu waaw maa ngi tàllal sama loxo waa parcelle di leen wax ni Tapha Mbeur làmb bëgg na ko te dafa am fu mu toll mais maa ngi sàkku ñu ñëw jàppale ma parce que manqué na fi xale yi rek ñoo siy jàpp Tapha am na métier Tapha Mbeur amoon na métier mais léegi amatul métier nekkoon sa man sama xarit sama mag moom ma doon jàngal faux plafond mooy lii ngay gis corniche yi dama ko doon def. xam nga ko ba tey. non mën naa ko mais xam nga ni ay trois ans ngi nii dafa du moom waaw bàyyi naa mu sedd parce que da jël samay heure entraînement te man làmb kese laa bëgg. dafa am na jabar. dafa mbër am na hymne national daa mel ni yow jotoo ci de. no film no femme no chine no wine no aya no bilo dégg nga ma de. waaw sama hymne national. mooy no film noo femme no chain no wine no aya bi mam déggoo ma de du ci jaaraat. da koo jarab mukk ci àddina <laughs> kon daal xale yu jigéen nañu rangé wu na le ma ne ku ci doon ñëw na nga dëpp booy ay barrière lañ teg fii ay brique ñu ngi jënd ci ciment pour raax lépp kenn du fi jaar. mbaam mbaa miñ koy defal mbaa doo ko bët. bët mbir bi. <laughs> nguuti pexe de. yaa ngi may dugal. Ah, booy yi rek la ñu mën di waaye bëtt moom yor ngam xel ñun ñu toog ba créé hymne national kon xam nga ne newuñ ci xale yi damay bëtt miir ba bu booy yi tabax ko am di Moustapha gars yi mën nañu di bari rek lépp tabax gars yi nee nañ ma bis ñu la gisee bis ñu la gisee nga yéeg ci miir bi ñu xëcc la nga wàcc dem takkali la soxna waaw nga yaakaar bu maanaam bu doon ko gis wax est que kon di réew mi gars yi gars yi day gisaguñ gaaw gis <laughs> gis de parce moom daal fexeel del na sàkketul rek dama ne la gars yi bu ma nee maa ngi dem joor sax taxawal fan nga nekk xaar ma ma ñëw foofu pour ñoom fu may dem maa ngi taali dëkk bi fu ma jëm ñu ne ma alo fa nga nekk ma ne waaye mas nga yaakaar bëggante neexul nag tafa bëggante ah moo ci duggee dinaa xool ba xam gis ku la bëgg neex na gis naa ko booy yi dañ ma bëgg xale bu jigéen boo nopp mu nopp la tafa <laughs> loolu ah bis ma ci duggee naa ko xam sa booy boobu moo xam booy booy bi naan man ku ma laal ma damm ku ma jege ma damm mi ngi dund l'amour de tafa fa lañ koy yemale kontaan naa yow looy tàggoo kuy lamur lamur lu moom laay waxal na bàyyi lamur bi. waxal ci loolu man waxuma ci yow yow laa doon waxal man ci làmb laay wax looy tàgg. tooñ ngay tooñ ah kay tooñ ñoo xam ne dañoo tooñ ba bàyyi tooñ. waaw waxal looy tàggoo. waaw di santaat sama gaay rek ñu fi fekk xam nga di sant waa parcelle 1 ba di sant waa Grand Médine waa Cambérène di sant Moïse di sant Dame Sène parce que ñooñu du ma pare du ma bàyyi si dina sant Franc Hercule ma penda ñaari yaar tafa leer bàyyi ma benn booy ak gars yi may àndal moom jarul jaar seen i tur quoi mais boo yooyu noonu maanaam dañ maa bëgg ba dañuy dégg loo xam te ni mooy loolu sax mais dañuy taru dañuy mooy bu mu dëgër di santaat waa Leewtoo TV di sant képp kuy seetaan site internet bi parce que Leewtoo moom moo ci moo ci toog moo ci toog de gars yi Leewtoo lay amee xool leen li mu fi wax yéen xool ngeen ko. xool leen li mu fi wax. <laughs> Cula. ci bu ànd ak 135 boulet. dégg naa directeur Leewtoo mi ma ciy tegal 15 boulet. Thialis Faye muy 150 boulet. neex. <laughs>